713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum da ciy gën te bu ñëwee nee góor tax. ñëpp di gërëm ñëpp rawatina sama supporters yi nga xamante ne vraiment suba la ñu ngi fi di sant ñëpp maa ngi leen di sant baax di leen gërëm di gërëm journaliste yi di gërëm waa Canaba kon waa mbokk guy gi comme ne na ma gërëm leen di gërëm ñi fi teew di gërëm aussi monsieur le maire mi nga xamante ne dafa def déplacement ñëw fii di suñu maire ci Guédiawaye ñu ngi koy félicité di ko encouragé bu baax a baax ndax li mu def tey ni yàgg na ko def ak ñun di gërëm suñu père Masata bu baax a baax gis nañ coono yi ngay daj per Diaw gis nañ ñu muy daj xër ci Balla Gaye la bëgg bëgg baala Gaye dë loolu ñëpp xam nañ ko maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm suma tëggkat Adama Ngom bu baax a baax di gërëm aussi tamit euh, waa école de lutte Balla Gaye ak mbëri fi teew yëpp di sant guy Gui Lac de Guiers Alioune Seye 2 Abdou Diouf Marley Sakes Lirou Diane Gabar Sy Jackson ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa coono yi gis naa yéene bi di gërëm keccam bu baax mais nag Alioune Seydou Ba baax ngi koy gërëm di gërëm spécial suma boy yi nga xamante ne vraiment ñoo ngi ànd ak man di liggéey rawatina labin Golo ndax école bi vraiment gis nañ xale yi coono yi ñuy daj ci man bëggal ma ndam sopp ma te wóoruma maa ngi gërëm nag bàyyi ma jigéen bàyyi ma aale ndax kenn ku xam ne bàyyi depuis mbapat ba léegi ñu ngi ànd ànd bu yàgg te dëgg la wax dëgg yàlla maa ngi sant di ko gërëm di gërëm Abdoul Aziz Alé Ndiaye di suma mag di suma xarit di suma kilifa di suma lépp ci àdduna rawatina famille Baye Alé Ndiaye yëpp di gërëm suñu Baye Alé di gërëm famille Sakho bu baax a baax suma mag suma kilifa suma xalifa di malal Sakho di gërëm góor gi jibigéey bu baax di suma papa maa ngi gërëm Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon ak Cheikh Mbacke Gueye ak Baara Gueye ak Malick Gakou bi nga xamante ne mooy si suñu mag ñun ñëpp fii ci Guédiawaye di ko sant bu baax gi seen coono di gërëm Aline Sall bi nga xamante ne vraiment yàgg na sonn si ñun ah, nen na taal gën a sonn si ñun la Diop yàgg na sonn si ñun lépp Guédiawaye ñun loolu lañ xam. dëgg la Ahmed félicitation. mais lépp géejawaay la. yàlla na ndam li ci. ñi fi nekk nag perte loolu yàgg nañoo def lu ne fii ci géejawaay yow it sa xol la la yàlla fay. di gërëm daal waa géejawaay yëpp di sant ñëpp ñu ngi jëm ci bis bi nga xamante ne la set nag ut la daanaka jege na ba pare. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu ci ndam. amiin yaa te incha bu neexee yàlla nañ ci am ndam bu soobee yàlla. walla waaw man li ma lay njëkk a laaj mooy. maanam combat bi bu ñu xoolee. dafa mel ni temps yi yëpp li ñu doon wax ci rajo yi ak télé yi ak ñuy bind. Balla waa kër Aziz Ndiaye waa kër Baye Allé dañ koo bàyyi. àndatuñu ak moom gungewuñ ko ci combat bi Balla dafa wéet mu mel ni dafa am loo doon nëbb depuis lool saa yu ma la laajee doo nangoo sax sori ci combat bi ci lu bari. loolu waxi dof la loolu waxi dof la waxal leneen non du ma wax leneen waxi dof la sama question dama koy laaj question la mais waxi dof la non damay waxi dof dañ koy wax fii allons-y waay dañuy wax waxi dof Baye Ndiaye nan lay bàyyee nan lay bàyyee Balla Gaye non doo ñu wax li ñu wax nit da ngay wax bu da ma wax loolu yow la kan yow yow la kan la kan yow mais moom la kan waaw waaw waaw xam nga ci tontu euh, loolu leneen famille la bi nga xamante ne wax dëgg yàlla bàyyante mënu fa am soppante ak wóolu mhm. Aziz sama papa ba muy dund la ma ko dénk tey Aziz maa ko gënal doom yi mu jur ma xamal la loolu tey Babacar Baye Ndiaye mii may wax yow maa ko gënal ay doom ay doom yi mu jur parce que tey ah, dafa am loo xamante ne daal ñii bu ma bu ma bu defoon tey loo xamante ne jaaduwul bu ma doon soli sagar sax ñoom dañ may téye parce que sama papa moo leen ko dénk suñu papa Baye Allé sumu yaay mère Khoudia Diop jël ko dénk ma leen ñoom mënuñu ma bàyyi ilaa yow diin bu ma def bu ma leen doon tooñ chaque jour duñu ma bàyyi loolu yàlla ça noonu noonu noonu en tout cas combat bi dafa nekk combat bu ñu ñor lu bëri loo xamante ne amuñu temps pour wax ko jëf rek moo ci solo te bu bés baba incha allah di gërëm waa golf bi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi sonn booy yi toog sama buntu kër subaak ngoon guddeeg bëccëg maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que sonn nañu rawatina waa Géejawaay combat bi nag. man yóbbu ma waa Guédiawaye barke Serigne Saliou Mbacké yóbbu ma non non billaahi yóbbu waa Guédiawaye soo ko waxee mooy ça veut dire que da ngay confirmer dimanche non yóbbu leen parce que dafa am loo xamante ne waaw euh, ay mbër sax bu ñu taxaw di wax lu neex ci làmb waaw man dem naa ma dama toog ba toog ma xam ne man maa yëpp sama supporter moo mu dal mais mbër mbër dootuma yëpp senegal barke Serigne Saliou ah. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Père Gaston production bu baax a baax. gis nañu waa Waalo Makkan waa Seedo maa ngi leen sant di gërëm waa Thiénaba waa njabootu waa Kër Sëñ Baara yëpp maa ngi leen sant waa Mbacke Kajoor waa Tivaouane waa Mbacke Kajoor maa ngi leen sant baax di gërëm di gërëm waa njaboot Sëñ Kër Baara yi incha giri boo xeexee ma duma la boo bëree ma daal